asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Omar Ly responsable politique APR Touba Darou Salam Sud ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ci ñëw gi ngeen fi ñëw tey mu nekk ñëw mbégte parce que ñun ñi maa ngi nuyu sama copain yi ma dendal muy Pape Sall ak Modou Ngom dañuy ànd ak Cheikh Abdoulaye Gaïndé Fall di ko ci li yëngu mom tamit nak dafa am lo xamne tay ji jii ko fi andi mu nek lu am solo mo xamne man na ne la lu mat dix ans mi ngi nii population bi diko bëgg mu jafe leen lool fenn fu nek ci kilifa yi dis nañ ko fa euh dis nañ ko sax ba ci maire bi ñaan nañ ko ko mu melni yombul ñun nak kere bi nga xamne ne yàlla boole nañu ak mom ñu wax ko ko xamal ko ne ko ñun de dafa am benn tuyau bo xamne ne biñ ko nattee war na tollu ci 1 km 600 te bëgg-bëggu askan bi yëpp la mooy suñu problème parce que suñu robinet yi mënul am ndox parce que tuyau bi ci jamono Serigne Saliou lañ ko fi tëraloon mais tuyau bi ndaw la woon mu nekk tuyau 63 jaaroon ci ay biiri kër yoo xam ne des fois da daan toj ci biir kër yi mu nekk loo xam ne lu doy waar la ñu bëgg koo sensé te xañ na kàttan gi matéwu kera bañ ko ko waxee ci sensé la yëgal ci téléphone am woote ci maaw ne ñu loolu pare na pour de leen ko ñaari semaine lañ ci teg

kere ñi ñu àndaloon am na ay kaddu yu seede yoo xam ne sëñ bi cant na ko ay kaddu cant yoo xam ne sëñ bi sant na ko jëmale ko ci moom euh, mu nekk loo xam ne bëgg-bëggu ñëpp la ñu di ko gas nag ci ndigalul sëriñ bi biñ ko waxee sëñ bi rafet lu ko sant ko taalibe yi pour ñu gas ko euh, wax dëgg yàlla am nañ kontaan bu baax a baax di ko wax ne nag ñun waa Touba Darou Salaam Sow jàppale na pare nañ pour jàppale ko ci engagement bi mu jël pare nañ pour jàppale ko parce que nag lu jiitu lii gis nañ ay liggéey yu bëree bëri yoo xam ne mu ngi koy def ci dëkk bi gis nañ muy maye ay ambulance mi ngi maye ay ay ndox di def ay ay ay lu nekk mi ngi koy def ci dëkk bi kon loolu jaadu na ñun ñu jàppale ko mais ñun tey sama xol dafa fees parce que wax dëgg yàlla jàppale nañu jàppale goo xam ne jafe woon nañu lu ma 10 ans ñi ngi nii ñu di ko soxla mu jafe ñu tey moo ñu ko fi andit kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko te loolu xañ na ñu suñ kàddu moo jàll mais ñëpp ñoo sant waa Touba Darou Salaam soxna Touba Darou Salaam soxna nekk na quartier boo xam ne ci Touba fi mu ne nii ñi ko ñi ko xamul bariwul parce que population bi fi yeewoo Pape daf ne 2000 personnes mais ëpp na ko waaw 10 mais ëpp na li fi yeewoo fi mu ne bari na lool. waaye temps laa ko mën a bokk yi ñu ngi ñu nuyu bu baax. Ah, man laa sëñ Xaadim Ka imam yëkkati ay kàddu ci turu ci kàddu chef de village bi. jaaree ko ci ndawam li mu ko yebal di sëriñ Mourou Sakho xam nañ ne dañ kàddu yu cant rek. jëmale ko ci seen kilifa gi ngeen gi leen fi yabal muy sëriñ Cheikh Abdou Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma mi nga xam ne ne ñu ngi koy sant bu baax te boo xam ne daal mooy amul fu mu amul fu wax nakat li mu def gis na ko te xeebu ko ndax yitteem la woon ah, muy wax ne moom dëkk bi rek a ko ñor fi waaye def gis na ko de moom da xam ne wax dëkk bi fi dikkoon jaar fi sax dindi cent franc ma ko fi xale sax jàpp ne moom mu ngi surtout na nga ah, nag gis na ko te yëg na ko ndax jàpp na dëkk bi lépp moom la waroon kon lu ko ci waaye gis na ko te xeebu ko mi ngi sant baax sëñ Abdoulaye Bak ngay defaat ma ah jant gi nag su moom dem waaye mënut ñàkk jaar ci ah suñu ñetti responsable yi moom ak li Pape Sall mu ngi ko ndax ñoom it gis nañ seen yëngu yëngu ndax li ko tey bu fi ñëwee grâce à ñoom ñett ñi kon mu ñëw nak daal cant gi cant gi ci ñoom dem ci sëñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde di nuyu ñëpp nekk ci groupe xam ñu la nuyu sëñ Moustapha Mbacké yalla ka ci wër tek euh, sëñ Ibrahima Sow bi borom dëkk bi diko ñaanal lool mu yag lool ci wër ñu sédé village bi ak lool mi di Moustapha bi may nuyu sama xarit nak Pape Sam ak Omar waaw maa ngi nuyu baax a baax di sant Cheikh Abdou nag bu baax parce que lii ñu bari fi yu bëri ñu nan fi diggee ko defuñu ko ñu ngi ko sant bu baax nag ba mbir mi jaaree si loxoom mu def ñu ko baax lépp lu ma war lépp lu ma war a wax nag Omar li mi ak Pape wax naan ko ndax dafay yem sama kàddu di sant Cheikh Abdou Bali bu baax xamal na ko ñun ñu si ginnaawam tey ñu si